والقلم وما يسطرون def rek mooy daal di joxewaat geneen kàddu goo xamante ne nii ci liggéey bi la bokk di kàddu ñi nga xam ne ñoo fi teew di kàddu këru diine yi ak association islamique yi dañuy jox ki nga xam ne mooy imaam euh, Fadlu Taal mooy yëkkati kàddu googu alhamdulillahi alladi damina xifda alqurani qailan inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jégalu ndax dañ noo yónni rekk ci turu daara ji ci turu kilifa diine yi ndax seen njaboot lañ ci turu association islamique yi ndax bokk nañ ci ñi ci yëngatu ñu yónni ñu waaye ñu ñu gën a mën li ñuy def ñoo ngi toog te ñun xam nañu leen ñoo ngi ñaan yàlla liggéey bi yàlla na ci yàlla dolli barke alhaji sëriñ mi koy taxawoo ak bokkam yi ak sëñ daara yi ak njaboot gi yàlla na seen teraanga yokk alxuraan nag wala lislaam bi taxawu ko waxtu wu nekk dafa am priorité maanaam awlawiya waxtu wu nekk ñu seet lam gën a soxla ñu taxawu ko ca googa wàll léeg-léeg nag loolu posé problème léeg-léeg ñuy sonn ci lu ñu réglé ba noppi waaye waxtu wu ne am na défi boo xam ne ñi yittewoo alxuraan te yàlla wax ne moo koy sàmm te du ñëw bind du sat xalima du joxe kayit waaye kum nar teral nag yaay bokk ci ñuy taxawu téere bi jamono bu ne nag wax nañ ne am na lum soxla ndax bu ñuy seet daara yi ci réew mi ci démb bari nañ waaye mënees na ciy jukki rek ci waxtaan daara yi maam Matar Ndumbe Jóob Samba Ayib muy daara yi kokk ci ku ne xam na ne moog maam Maara Mbakke ak sëriñ ma Laamin Saar bu caarin jama ñoo bokkoon di jàng xam-xam ca kër sëriñ ma Samba Caam ci Caaminu Jolof ba yàlla tasaare leen ñu barkeel waaye biñ tasaaroo itam xam ne mission bi am mooy fexe ba téere bi yàlla bi tasaaroo kenn ku ne dafa dem sëmp daar maam Mataar nag di jàngale ci waragu njataar ci kër baayam ba am daara yi ñeen fukki elew ak benn ñeen fukki taalibe ak benn waaye bëgg xam-xam tax mu dem piir ba mu demee piir mu daje fa ay naari gànnaar yoo xam ne bañ ko xoolee teste ko alxuraan gi ni mu mel ni mu ko mokkale ni mu xame al ulumu diiniya mu yéem leen naar yi ne ko yow daal li la dese genn fànn rek la mooy li ñuy wax grammaire arabe an nahwu soo ko xamoon da nga dimbali diini ji dimbali alxuraan mu daal di wàññeeku ne man kon damay tas daara ji dem gànnaar jàng déglul bu baax awlawiya maam Maara Mbakke ne ko daara ji ëpp naa tas léegi xam-xam nga bëgg dangaa bëgg dem gànnaar demal gànnaar ba baa ngay ñibbisi ñeen fukki taalibe yeeg benn at mu ne danaa leen dundal ba weer wala li si déwén kon awlawiya ngi noonu bu daara ji tas te nañ jàng kon waxtu wu ne war nañ koo seet. daara ji nag lii ñu ciy def di ko xeeb tubaab yi tubaab yi naw nañ ko ba tax na li ñu gën a bañ ci àdduna mooy daara parce que lu leen masa dal daaraa leen ko teg moo tax wax ju siiw jooju ngeen xam parlementaire anglais boobu doon wax ne yëkkati alxuraan ne tant que ce livre est vénéré par les musulmans le développement de notre domination dans les pays islamiques sera impossible ab tubaab yëkkati alxuraan ne fii ak téere bii mu ngi tasaaroo nit ñi di ko jàng di ko xam kenn munta not jullit ñi kon xeex bi fi la tàmbali kon awlawiya moo tax waxtu wu ne ñu jóg bi daara yi demee ba ci cosaan mbind mi am na nit ñi yàgg nañ ci daara yi lool ba daanaka daana nit daana am ci daara yi at yoo xam ne bu delsee sax danañ jàpp ne yu bari raw na ko te dara rawu ko ñu xaaral ñu xalaat ne mokkal gi yéex na ñoo ngi bind waaye mokkal gi yéex na internat yi sosu kon loolu itam awlawi la waaye bi internat yi sosoo ñu yittewoo njàng mu gaaw mi ba mbind mi des gannaaw kon awlawi priorité mooy li xew mooy alaaji Sëriñ Seck ak ñi ko taxaw ak ñi mel na ñoom jóg nag dundalaat mbind mi kon awlawiya bi léegi mooy ñu fexe ba daara internat yi ñu boole mokkal ak bind ndax soo mokkalee te bindoo itam boo wutuwul garde mokkal ga dana jafe waaye nag ñu ñu dimbali ñuy jàngale ñu ko sëñ Tuubaa doon defe waxoon nañ ko fi daaw réew moo mas a dem ñuy jàngale alxuraan ñoo fa gën a sonn waaye mi ngi bëgg a deñ ndax ku ma sa bind kaamil jox ko mu jox la loo xam ne ña béyee woon amuñu ko ca seen mbay ma ña demoon commerce amuñu ko ci seen commerce ga ñi amuñu la koo defal ñépp daw jàngale ji alxuraan jàngi alxuraan moo tax góor gi wax ca way wane sëñ Tuubaa soo farewoo di ko bindal mu farewoo di la dundal soo ko dee bindal di ko bayal mu sàkk ñuy bay di la jox mu nawloo nag ñuy jàng ka jàngale ba lu mu am ci lu baax jox leen ko ba biñ koy tegg dañ ne sëriñ bi yar na jox ko yor na jox ko jox nañ ko mu jox ko jël na doomam jox ko ci digganteem ak sëñ ndaam kon ñoo ngi ñaan yàlla barab bi yàlla na ko yàlla barkeel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imaam lu taal imaam Fadilou moo doon yëkkati kàddu euh, këru diine yi waaye lenn ci association islamique yi euh, muy kàddu goo xamante ne kàddu daara la kàddu soññee la kàddu gu taarixi la itam. ñu jaajëfal ko bu baax a baax ñëw nag ci leneen loo xam ne daaraako moom itam ci animation yi muy wàllu boole e, boole alxuraan yi nga xamante ne daan nañ ko defee ay tënk yoo xam ne daan na sàmmal nit ki ak mokkalam daan na ko jàppandile itam ci mbind ni ñuy def mooy woo Serigne Saliou Sall e, Serigne wu Sall di kenn ci liggéey bi moom itam bokk ci commité scientifique bi waaye itam di joxe participation di Serigne Daara. mooy ñëw indi eh, participation ci bisu tey bii ci wàllu boole yi sëñ Saaliw bismillah auzubillahi min asheytaani rajim bismillah ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di balwaaq ñépp te di leen masawu coono yi mu mel ni dellu siwaat nañ ren ci waxtaane boole boole alquran daa mel ni alquran xaw gee jaxasoo xaw gee jafe moo tax mag ñi takkoon ko ci yennati baat am ci baat yoo xam ne bari gim bari ci alquran moo tax ñu wutal kow boole am ci baat yoo xam ne niroo gi ñu niroo moo tax ñu wutal kow boole am ci baat yoo xam ne maska yu waroo moo tax ñu wutal kow boole loolu nag ci lañ bëgg ñëw ak yéen mu mel ni dañuy wax ne ah goo xam ne doo jaraan te doo maw ni ku la am sa daanu ah goo xam ne du jaraan du maw ni te ku ko am sa daanu wala yéen atay taa nga laan fa in naa nga jigéen fa in atay na ma nga jigéen min xar de leen atay naa nga lën bi bala atay naa hum yaar yépp moomin bi xayri sultaani atay hum ak bi xayri sultaani atay humoo yépp xafraan mu amaat beneen booleb runge boo xam ne dañuy wax ne amanoo mahahoo mag ñi daa wax bu ma yóbbee coow li ma nekkee doy na mattee laan xaaloo laan jaahadoo nga baraan bi rahmatin min naa yett yépp a xóot was tax yoo xafraan noo humta riim bi bax di genn ak maaska ak bax di gennuk maaska ndax booy jàng ci bopp laa yu hibbulaahul jaxara danga dégg mu naan bi bax din bi bax din ñaari yoon waaye bax din genn ak maaska ñeent la bi bax di genn ak maaska it juróom la léegi nag pulaar yi ñoo ko daa wax naayo muy nay bi baax di genn ak maaska ki ma lañ koy tënkee bi baax di maa kase boo nga galaay bi baax di maa aataytu moo hun na jigéen bi baax di sunoo bihim njoogu bi baax di aswaaj yi nga tëriim bi baax di bax di genn ak maaska xan baax li ma am sawlaawo nga jigéen li baax di saniim nóor xalaa baax li lame jami naa nga sooraa yi fii baax li lam ree nga xitaal illaa baax di aswaaj yi nga tëriim loolu maaska yooyu li tax ñu di ko faram-fànce danga nga def bi baax din wala nga def ko bi baax di ñu ñëw ci beneen boole bu ñuy wax rusul yi goo xam ne day taara juróom ñetti yoon la ñëw ci alquran min bahdihi bi rusulee nga laan baxda rusulee nga jigéen xalaa fadratin min a rusulee nga njóogu min a an bàyyi rusulee nga xóot fahal xala rusulee nga nahli illaa maa qad xiila li rusuli tafsil biddahan min a rusuleeg awlool xasmi min a rusuli yépp nga laxaaf ñu ñëwaat ci sii geesu ngaax ngaax nag waxoon nañ fii daaw ne mooy saat moom la ko mag ñi daa gam-gam leeg pour bëgg yow miy jàng nga xam araf wi sii geesu ngaax bi xami si nga mbargaan mbargaan mooy sóoratu yuusufa wala si nga njenge mooy sóoratu kafi bin nawaa si nga bayaan yoo si yaar yépp mbargaan ñu ñëw ci boole maska muy lama jam-jam jam mooy lu waroon a sidd te siddut lamaa yatafajjaru lamaa yasaqaqu lamaa yëhbitu yépp nga laan lamaa la yuwa fi yannawum hóot lamaa jàmmiwun yaasin lamaa mataawun suxruf lamaa tëx kumoon ak lamaa taxayaroon a yépp nga xalam ñu ñëw ci ilaa ma laam debbo laam debbo mooy laam goo xam ne yanara la laam góor nag waxoon nañ ne laam góor ak ndaanaan mooy lama liif maa ngi dañ daa wax naan mag toogee penkam yat jaxalaa nga la raaf wala xalaa nga xaj ji xalaa fil ardee nga xasas mag ferang laa ñett ilaa ma laam debbo nag ilaa may suratin laan ilaa max firatin yaar galaay ak xadiit ilaa mada jihihim baa mu galaay ilaa maryamaa nga jigéen illaa mat yat na yat laa raaf ak hóot ak an kabooti illaa ma xaanimaa nga fat yi ñu ñëwaat ci beneen boole xam naa masoon nañ ko fi muy sukkal tewee juróom mag ñi nee ñu sukka yàq sukk yàqul ndaag da koy dolli taar sukkal tewee juróom sukkal juróom sukk yàqul ndaag ma saw fii hilaan ba naw riibatan baraan wa isaa maa xaaribuhum sooree la wow ra'usahum munaafiqiin moo tax boole dafa xaw a doy waar sukkalte wi baat bi boo koy bind balaa baat bee jeex dangay ngay def liif ak sukkeen ndax fa ak sukkeen liif ak lomb liif ak busaale liif ak euh, mawni liif ak euh, gëkk kaang ma dafay am euh, góor ga dafa am doom ju xaw a ñaaw lool te dib jànq yàgg fa lool jarbaat ba jàngi ñu ne ko ah eh, sa janq bi day jar gi du gaaw mu ne ah, am naa jarbaat bu jàngi te ab sëñ daara ba ñu daara kuy nangu sarax doo bañ ab jànq <laughs> ah kaa ma ñëw kaamil yaay ja ne ko ah, na ngay taree ji mu dem tari alquran bi ñuy julli suba bi ñuy julli eh, eh, gewe mu tàmbali bi ñuy salaatu mu yeggal mokkal alquran lool ñu ba xëy rek daal di lasal kaamil bi ñu di ko topp di ko topp di ko topp bi biñ koy topp moom xamul ne soxna si lañ ko bëgg a may te soxna si rafetul waaye ba mu toppee ba yaa gis góor gi yëg si ci asko basi wa xusniya illallaahi wa ahlamu mu téye ci loxo bi ne ko góor gi asko mboccoor la basi combañ la wa xusniya ngeen la wa ahlamu gëkk la illallaahi laab jigéen la bàyyi leen ma ma seeta sax naaw li wasalaamu aleykum wa rahmatullah maa sha allah macha allah macha allah sëñ Mbacke bisimilah. waaw moom mooy Serigne Saliou Sall <laughs> euh, bokk ci kuréel yaatal mbind alxuraan karim. yor daara ju mag ca xayra jaaga ginnaaw xelkom. Mm-hmm. Euh, ana mu ne ana bu ne mu ànd ak ñun fii indi fi yu am solo. macha allah te mbokk yi ku ne xam na ne boole mag ñi xaj na alxuraan daa meloon ne fasu rëcc. Mm-hmm. xam nga fasu rëcc moom boo koy seet nooy dafa jàpp ko rek ngay lijjanti. dëgg la. moo tax mag ñi moom bi ñu ñëwee nun ñu téye la alxuraan bañ fekk ko fi tey jii ba man koo maxaarij man koo tajwid mën a def ada buñ ko téyewul woon ak effort kon du am. lu am solo la fàttali na mag ñu baree bari ci saal bi euh, rawatina seen démb daara. Mhm. ak yi nga xam ne daara moom la amoon. te loolu itam bokk ci aar bi nga xam ne alxuraan da koo am waaye mag ñi itam. kenn du ñoom ndax loolu daa bokk li nga xam ne moom lañ tënki alxuraan ji mhm. ba nga xam ne nit ki day mokkal waaye mokkal gi day sax ndax ginnaaw baat yi daa nuroo te wàccut ci suñu làkk mhm. léeg-léeg mu tudd fi baat boo xam ne da xam ne lii moom olof yu wóor la anta bi ni'mati rabbika bi majnun